هو الذي يفعل ما يريد هنا الذي يريد المريد وهو أي ثمد وباغ سبحانه سوك نف وواق ننسان تتي فدل تويد بعد صلاتنا على الوحيد تسير لي عن الدنيا waxe kàddun lalwal ku nekk wéy na te seetlu xayru xalqi ak saabaam ya ki tax ba yàlla bind mboolem jaam ya teewul mu dem ñu na wa ma muhammadun illa rasul xalxalal lin mu doon dunya suran kalak taxoo di yaale xayrul wara waa makka dun ko jaale waaye yàlla yóbbu ahmadul makki yoo dellu si yóbbu ahmadul mbakki lu bàyyi sunu maam cerno ibrahima kële di xaadim si lay maxduma yaari xew wi ko yetteel fa daarul mu fi xew wi le di ki ala seydi ibrahima ma jooy le suuf ibran awa tafima أبكي على خليل إبراهيم ما دم جول أسمى قديما جنتك جاي مام تن إبراهيم weerangi jooy laylan ba daa bayiima ca moomaat sunu weeru kor wa jooy naa naa xilawul korom na taw ba soom na ma jooy si saa ndaama la sañ ca ci alsasin cay yàlla maa ka waaru waroote naa waaru garaw gawan daaw jommete naa mi mbirorey ne leen waaw ay malaxaali xalilullaahi way jooyle leen masaana jaay lillaahi ay na laa far di xalilillaahi maam Cerno Ibrahima baabullaahi عين على قطب الورى في الجاء خليفة القديم دون الله عين على كرم رجال الله شيخ شيوخ قائد الإله ويمن ويمن mi ko ñaanal wird def ko sëriñ fu muy jëlee di fardu mooma mayen fa daaru Abdul Xaadir di darajaay sëriñ ba Abdul Xaadir dellu ma may musabbi atul asri asri sahaadatan ridal bi duuna suq ma ko warulan fa daarul mukk ma jooy la seex awa balla baayam ba fookoon te kër balla ma jooy la seex muhammadul abibu baayam ba moo appal njëriñ am ceebo wa yaa xalilullahi way saandaama la gétti wan góor ña defug ndanjaama wallahi taaron wa ñu war tuuru ma jooyo jooy ba sama gët muuru taaru gi na saa bi wow na saa la ginal na cer nu dem na billaahi wallaahi tegal sallaahi duutuma ree bakke ku duuna laahi naama xalilullaahi ibrahima war a ngeen yow garab gu rëy ga kerolan waa daaru nee jirim naaj waa nga nit ñey jaaru imaanu diinuna aqul imaani wasaa'ibul islaami wa lisaani yarnoy kenul diine dirug lislaam moo jëkk moo mujj te moo fi xam daam kenun yor mbaarum sëriñ ba naay na lee gal ne daanu aay na maam cerno dem na yóbbu far sëriñ daam sëriñ mamar ab sañu ngiy nuyoog daam kenn dootul xam la alxuraan ci mbakke ku mel ni seex abdul maram waa kokki way man a way man express ba teer na te taxuma àgg te wàcc na jileeg saxaar te masin ba wéy na maam teernu mécanicien ba géy na xawma taxaar gu may dugal bagaasi bawun booti ñooy borom bagaar yi sake ba dem na toppi manduwaar ga maam teernu dem na fekki bamba com ga ku ma ne fey ne fey subbuun looco yow loo doon teew te fef gay xooco ku mën a fey na fey suba un loo ca yow loo ci doon ca tefes ngay xooc way man way fu ma ne woon ba tarde ca Mustafa bu sa paas di perdi man nga xalifatu di xayrul fardi yaay doomi Ahmadul Mbakki yu am di bulu ko nag Ababakar Sadiqo ginnaaw Rasulullahi kon nuyu bulu ko nag xalifa am di Mustafa kon tey nu gën faa jooy e xadimul mustafa ma jooy la am ni mustafa baayam ba ko jàngaloon te def ko mi baayam ba bu mi ti baay bu mel ni Ceerno mu di ko xoole bamba ci biir xarnu bu mi jëlee ti kuñ roog maam Ceerno mu doon premier rijaali xarnu moo jëkk daw kuttu ba mujj ak moom ba gañaa ya fa xabul laag raw na gañaa ya fa tegi ba ñibbi këram njool ma këwan ko buur ba alaaxira jeexal kër maam balla seex Mustafa amul ku dul seex balla seex bamba dem ca wam sasin fa njurbel kërag la adduna yi nu rooku kurmbal seexanta dem ca boppaama sarsasin yóbbu sëriñ afiya murid yey bis bis sëriñ Masamba dem ci atum unay tasin yu may di ko di bis bis fekkoon na seex keroog rakam seex absa dem nan ca amana sasin tey cam murid yëpp nag di yaakaar ceerno la ndax mu toofi ba ma tal bi xarnu ndekete woo day dem ci atum ba sasasin xam naa su doonam ñangoor ma ngay da sasasi watin walaa leen di bëgga woon ak mboor ma ku dox doxin wa daa di ngir ma ngolaal mu ma ca kër ga fekki leen ko dooma di baay watit wa tokki leen ko marsiya baa leen di xamal watit wa njamme ngi di ci sulli mbootu wa ndax ku xamoo saayir na toppi membar xayaat balaa neex nga dégg séeréer sëriñ ma sàmba nee na inspecteur cer na tey ma son digéer maam cer na wàcc na defar na diini ñibbi na ajjana ca óorel diinu maam cer na wàcc na ba faf daam sëriñ ma marata ñu ngiy daam jigéenul óore ay yaa koy teeru lalam ya ñun barsàq ñoo ciy feeru ma ngay bu naana ci lalam di fuuru jot na ca bisu feer ba di tulliiru bamba takkal na ko médaay yi baatin yu dul tekkeeku la daa borom kun yëngal na firdawsi la maaja tuubaa taxaw fa jannaatu nay mi boobaa jannaatu atin am na fay ridwaani nuyoo na fa ak bàccak borom gaawaani maam Cerno nax nanu ba dem jinaani ma deebu ko seeti la daan fukki fan juróom la di buuru ñu naa bayit bayit mu daa di muuru ñetti fan ak ñeent weeru soobaan di alxames la nene refreen am na juróom ñetti fukk ak yu manki yenenti weer laaj naa ko mbakki ku bëgg a fa mu dox ci na ma joxel noppu kon nga saagar ku bëgga xam na cerno baati daa def déglu ma danga ko moo di aarif ba la daldi ànd ak bamba yërëy jikkoom yaak jéegoom yaak tànkam ya bamba ko jàngal moo ko def kaan foore jàngal na ay foore tumas la doore ray ray ma saayir sa di xañ baatin ba fu mu yenee ku mu téeñu fab yanam ba xolam bu jébbalu ba ak tebeem ga ak dëddoom ga ñambaar ga yaaram ga ak sàmmoom ga ak maanoom ga ak doyloom ga ak wàkkiblu ga ak wóolum ga moo bañub tubaab baa tef cedd mbaa yéefar soppul ku daa paranoon se mbaa kuy séefar ngëmëm kaa waralan liimaan jaa dëggal gu mat ga waraloon tawxiid ja sarihatoom ja waraloon lislaam ja haqiqatoom ja waraloon lisaan ja tarbiya ga waral barik addis ja tarxiya ga waral muray badis tasufum ja tax mu saf murid ya haqiqatoom ja tax mu saf murid ya mas la sopp àdduna ak dagam ya seytaane bànneex ak bakkan bokkam day seng jàkka ja saxal fa mbooloo saxal fa junni juróom moo yoolu mas la waxtu mas tiim fa daaru masul di maamul mas la fay fa daaru gennook fajar la mas la tiim fa daaru keroog moxtaar jóob moo ko nax mu waaru noon na ma yaali takkusaan la mas la tiim te bi ma amee ndoxoy na julli ma tiim keroog la ñuy tuddi sëriñ ma sàmba ànd sëriñ daam sant si di bamba ñaareel ba mooy at ma muy sañcu kodo ñu tuuba at ma mel ni kado te daa dinaa fi la ci weeru koor ji ilimaan mooy waane ji ilimaan de suka moo maandu ma seesu ko gàgganti bir ma waadu ku weddi laajal naari waa day maami seen gag ba jàllot jukku ñëw suudaani bambaane maam cerno na leen gàgganti man bamba bis balaay lijanti bambaane maam cerno na leen gàgganti man bamba bis balaay lijanti keroog la maam cerno lijanti naar ya tasaare mënaa ya talaalul noor ya tey muhjisaati bamba ak maam cer më ne su ko xibaar ko yàlla ma dañ ko tabaal du juum du fàtte mas la jama ngir bamba moo koy atte bamba ne bu cer no daan li xaamlu fa daarul manaan maa nga toog di laablu man bamba yit su may li xaam bay kabbar cerno ma daan maamu ñi ñaari mbër te booba Seex Bamba nga wan ko naa kiri te daaw ko xamal ma naa ak jaxasoo du ko tere ibaada kenn mënu ko def loo bi daambaada denir lu gaag yeexal nga ak jiibam nga lu tax mu fàtte seen saaweetam nga noppem nga ba mel ni daf laa fàtte te teewu ko dañ ko fa cernoo sat masla rat masla tiit du jaaxle ma dee su kalaame bor baax de ma see fu koo jiñub dërëm di giñ loo masla waatoo baa mu di jañu ñime ñime ñime ba mel ni aggar dafa ragal yàlla ba mel ni baqaar te wexe wexat ba mel ni xatar safar lewet doom ba mel ni am xar tabe tabe tabe ba mel ni marmar ta aya aya ay mel ni parpar fakir wan fataaki daarul muhti amal na leen da iw ya ko fàtte jirim ak miskin ya ñuy baayo nampal na leen ci saafaram laaraayo dagam yore yaa tax mu sab fakir ndimbal la moo tax mu sab aqiir yërmande ja tax mu saf saqiir ya teraanga ja tax mu saf kabiir ya ñamam yu neex ya tax mu saf siboor mbañum woto ma tax mu saf saboor goreel na jaam ña goreeloo na gor ya ngorom gurey ga wala nga anum ka ya ikam yu rëy ya wala nga jaxol ya géeju ikam ga duusutoo yal ya du sas murit di war di la di lu ñu di ñoddi mooy borom inaaya te du laajte loo ko jox mu sant soo ko joxul su la gisee soo ko joxee mu ne la abdulilahi soo ko joxul du na abdulilahi du woo murit du yeewu am murit te loo ko jébbal xam ne mooy amit du tudd mu newul gëdde ku mu dénk lab duutu ko laaj abada mu denc duutu ko laal sarmada ku mu woon la fa daarul mas la farfarloo du wàlli parti wulan baa dolla waag waaguur wa te mu nar ku bañ mu woon la wa ku masa toog ñaari ngémmiñ ya daroon ko ak ñaari ndaama jëfoo te war ko buy julli in fetel ya dal takk muy tànn jàkk wa di dox baabu te tew ko la bar waa Màkke waaye donoo gën a door fa kokki lim joxe ci fetel ma ne su lim lim ma ci fasin ma ne su ko xam lim ma ci sàq gi nag ak may na ma am sàq ba kër ban la bajaan war ci ab daal kuy laaji lim faji aajo sim xadaaji lu war mu def ko njukkalam day gaaru baaki mbaam la ndaawatal fa daaru xadi taraabiir ak i béy ay naaga baat dunay baax sàmm saa koy saaga yónnee na waa juma ja junnim ngurdu si kët gileem gaa ko sawan di fardu fukki junneeg ñaar la jox seexi ant ba mu ko yettee maqaama mu diw jant seex delloo aajir ko la met faneem ñetti juneem lu yóbbu moo borom ba te delluwaatit ko lalu pemeem ba ñetti juneem lu yóbbu moo borom ba ku weddi lii laajal mataar ma suugi moo yóbbuwoon xaalis ba moo ko sooke déglul ma wax fa sunu maam Ceerno jàmbaar juri jaara jaar ba raw na yàlla ko jagleel te asal mu Bàmba ñu bokk seeni ngir te fa biyan ba yow ma alaku ko bamba tànnoon muri ya bañ laa wax ba lee la moom lañ ndab la mu bokk bamba ceex yépp dañ caa tanga naan ba niit ba mu jëkk a sukk mu jojog ci kun fa yàkkoo noo ko dabal moo leen gën ngënee li saar yom bokk ak bamba ci wàllu ma moo tax moo tan yan ba ahmadu soxna bu ta moom maama aram moo sampuraayow maami mbakke fa këram maama aram bindal na bis ab dénk ko ay rakam yu ànd ak tagg nee na gaar na du day dawaale ba sér ya ko teeki lu ñu bil waali ñaari sëtam yu baax yi doy nañ seere Cheikh Bamba ak maam Cerno Lil Kabiir yéen yaari maam yaa bokk baay fa Mbakke ñu dellu bokk benn baay am barke mama saalooy ngay soxna jaara bu dukkal moom kenn sampi daara mama saalooy ngay soxna jaara bu dukkal moom kenn sampi daara mama sambake ndey soxna faat ndey ney maam cerru mi xar aadaat yi yaari maam ñoo bokk genn góor ga ahmadu soxna busa woy na giir ga ci sunu maam ahmadu soxna busa la seeni géej ji bam ba fee di duus déglul ma wax la laf ci mbokku baatin loo xam ne tuuti laa ca xam ci baatin yaa ma kan fa jina ci dunya ya bamba doon jëkkante ko baayam ba kala kala Bamba sa ñaan na kilee yor yan xam naa ne mooy son Aliou mbaa Omar billahi su Bamba doon Muusaa mu dem faaroona seeni mbir ak yooyele noona nee na koroog alluwa doon jàng la fa taxaw ci kaw di rëy di fag dana ko tooy aamiru waasiru tooy xutbu may xawsu dama dooru fekkoon na bambay jàng saaru xasas ba ca fa arsil umma yi ko jëlee te bamba daal di dem nekk maam faat jàngal ko ba sabi um jiyaat cër ya juróom ñaari cër bu nekk amu saar mu julli fay rakka saxal ko fa roog la bamba sangi mboolem cër ya mas la doppi lu araam fa bar la bamba toog bindal ko teere xaar perma bool xool ku ndey amuy teere foo la bamba toog bindal ko teere xaar perma bool xool ku ndey teere bisub kaar la ma batat baas kato ñu dégg sox yey tàkk kenn xamul ko waxtu wa muy la sox yey tàkku loola waral njàmbar gën a ko bëgg te bamba na ji day man faalo dara lemme alfaanu mag rijaal roog la yàlla def ci sunu maam ceerno sopp fetal jiyaar ba moom ab xarnu te takku la sunu maam moor ant la xasu gonte poroxaan bi jant ñu daal di sonn sa kala te génn réew ma soxna sa daal koy yanu booleeg meew ma bu ñu demee jaa bakkun la ca xart soo see ko falen koom ngente neleen suñu nopp lii may wax waruma waaye rasuulu sa wax nan jëfir ma baay baa ko jëbal korom maam cerno ko su ngeen bindee yi li tey guddi gu ñëw muy jàng tey wër néeg ba ba muy ayak fii su géej ba wal ba géej bu walee ci néeg ba saruñ ca ba muy ayak bis kenn du xam ne ndox toxal maam Cerno ak Seex Bamba seeni mbir ndono ba fa bittal kam te Bamba ne fu ma taxaw mu ne fa jaar jaxantu mboor maw yoon ne su doon ab dëkk Cerno yoon jëm si ci man ku suubu tagoo wa baay baa ku dut tudde Cerno Ibrahima mooy sëriñam bu ndaw awa tafiima te moomaat la njool ma daldi gàddaay ñibbi Kajoor sanci Pataar moomat waay keroog ba muy dem dafa listixaarlu ñu ne ko ñibbil ren Kajoor tam mbaarlu keroog la pencum Poroxaan ma daanu ma faati jóopu woppu sëriñ Bakaaru ca mooma alla xaali ma anta ñibbi kajoor la joor du naa mananta mboolem kajoor jiital ko def ko xaadi mu raw ka teew ak maadi mu boole koog seex anta ñii den waani jox leen sëriñ den afisul xuraani mu am faam at baay ba dal koy laaji jébbal ko bamba si xadaaji bamba ko jàngal alxuraan xam-xam jàng ak liggéey la boole wan mbaam ndam bamba yor yar ko ci waxtu si xar yi mas la moom li waxtu ci bari mas la juuyoog ndigalal bu Seex bamba mas la fanaan fa dun fa darba buy dem mu yor ca talakaak daramba ak seera baak daa ajadu saf laramba mësula juum ba tag bi maam faat ngir bëgg a lekk mbaamu naan laayaat mësula fanaan àll du genn daaraja day rafle tey yelwaani ba xëy am daraja te at la bamba ak maam Cerno ak Seex Masamba Jóob di dox ba wër war nan Kajoor ak baawal ngir bëgg am ñetti dërëm jaambur war nañ Kajoor ak Bawol waa njaambur ngir bëgg am ñetti dërëm bay jaambur ngir booba naar bu naan Sariiful Asan moo ko bindal ab bor la yenu téere bu tuddi nee ñu fat la faal ak rawdu faayixil ni maalatil jalaal na noog ma samba ba dem saam amuñu lul fukki xasab boole nee ñu maam ma bàyyi seex mu di jigal moo ko joxan sëriñ ba loola ko jagal mbaam ma sëriñ ma samba sambak la ko sëriñ tuuba saral mu sek ba ñu demee ba tollu néegi wajja fa fanaan sëriñ ba xatt wajja sëriñ wajja nga yor mbalaan nun tam di leen fi jënti di nu roog waa xandam te bamba na ndax waxtu yi tàggoo ñoom jox leen balaan ma laaj ko waral juum sëriñ ba tàggoo joxu balaan ma yaakaar ja tas cer na sant waayam Seex Bamba ne su ko balaan ma Seex Ibra Faati la yemal maqaam Bamba ne su ko balaan ma Seex Ibra Faati la yemal mbaa mu yem ak seew dafaal makaama di ay kuréel bisub xiyaama mbaa mu ram mbaa mu yem ak seew dafaal makaama di ram ay kuréel bisub xiyaama boobee ba tey maam Cerno Ibra Faat mas la tàggoog Bamba bi mu am jox ko te lu mu xam wax ko te te du ko laaj ko laaj mu jox ko te lu mu soxla cer ko ci baj ko ji waay ma ne su ak yi nga ne lam lu dul ji waay ma ne su lo xalam maqaamaam ak yi nga ne lam bisul xiyaam ma wax la bis ba bamba ak ceerno del fee nit ña di ree di maam cerno na Seex Bamba nu ngi reetaan naa dun fay bor bi dinaa ko yalwaan Bamba naa ko ku bëgg cor sunu fii nga nay ga del ci yóbbu ale si kiis Bamba naa ko ku bëgg cor sunu kiis nga nay ga del ci yóbbu ale si bisub karoog la sunu maam soxna cor jébbal Sëriñ Tuuba mbalaa mi defi koro maam Faati Joob soxna keroog maam cerno ñetti daram sa bamba fay ba day na la bamba ma sa dem ca kër ga gépp naa ko bamba gor nga mbalaan ma moo waral mbalaan yu bari dërëm ya moo waral dërëm yu gore yi ba tax yi wëndeelu boro pilaani am rëgi jëmbeelu ca tànki ni bamba yaag maam cerno la watay raame di daw di korno gannaaw ba naar ba del see fi mu jox ko ñetti junni ngir bi daan maam Cerno Faati jox ko ñetti téeméer sëriñ Masamba Jóob toftal ko téeméer karoog la gannaaw xam ne njëkk a fecc taxu la mu jëggeew ku gëm du xaj kuy rëbb day xiifa kamar di su fetele tànni du taamu bamba fi dara ba cer na fees ko dafte ko togg ko ñëw reer ko mosandi leen te ne lii aw mban la mbana galaa la ko junni ñay ma wax la at anta faatoo mooy magi seex borom ayaat keroog la bamba doon na anta fi saa'irin wa baatin dib jan ko wax naa waa jan ma duñ mën a bokk asamaan dul lënd man anta duma so damay suux na bamba toog ba sona mooy sama seex man mbàkke anta duma so damay suux na bamba toog ba sona mooy sama seex te yooya fal la daal di wopp faatu moo amee woon soxna ko yaatu njaañ la ko baay ba rabbi sub alarba bisub kalaak la ramb mbooleem mbar ba cam mooma at la xaalima mar ant yónni sëriñ baa ceer na ci ngant ñuy jaay ab kaamil yem du njajaar maam ceer na yelwaani xamul fu muy jaar ngir lamb yey gar sabare jaaxaan góor ñaak jigéen ña jaxasoo di jaaxaan Seex Bamba yendu fa garab ga di jàng te mas la déglum dan mas jigéen juñuy wax jéemoo leen forom muy sëriñ ba daal di xam lam lamboo moo leen fa toogal añ sarax leen ab lam booleeg doon maam Cerno yor ko moo gëm mooy ndey jee yaasin ma faatoo ndandu ñu rab ko alhamdulilahi amul dend ca bamba nee na Cerno yaa koy ram ca bamba noon na Cerno yaa koy ram yawmal xiyaamati moom day jox cerno sàmm jaay jaay kaamil ba kenn jëndul ko te muy mbindum Seex Bamba kenn jaay kaamil ba kenn jëndul ko te muy mbindum Seex Bamba kenn salla alayhi bi salaam والي وسبي الأمان سلا علي الله بالسلام والي وسبي الأهلام أما نكوي سوى الكري فيلا أما نكوي ري الكتو فيلا ba ñu ñëwee te amuñu idaaya di ñaari mbër yu nëbb wilaaya maam faati góor ko sarax saa yi nopp luñ salnoo mu nga sunu bopp ñu baala koog la ñuy jéeg nag balaan maam teer na jox baay ba fi riwaaya ñu baala koog la ñuy jéeg nag balaan maam teer na jox baay ba fi riwaaya ñu daal di jox soxna sa si di bamba nee leen suñuy nopp dañuy yeneen ba te moomaat la xaalim ma maranta su ko pataar njaw ma kemel ni jant te moomaat ca moomaat mu daldi faatu bawal di wal waliin di xayaatu aama sa sasin la faatu yi ñu rob ko deqale kilee xam ngilla wa radiyallaahu anil xadiim maha abii wallaahi amiin déglul ma wax la yow keroog miraas waa mbàkke ak waa kokki teew turaas keroog miraas man ma Bamba ne leen Cerno mooy sama wàll bu amee mu doy nu man yàlla doy na ma te doyloo naa ko maam Cerno doy na ma manit doy naa ko man yàlla la doy na ma te doyloo naa ko maam Cerno doy na ma manit doy naa ko guyennu xeetu ko ki baawaw Mbàkke taxaw fi naa sa Mbàkke dem ba Mbàkke keroog la Cerno yeesal njëbbal ga seddi li boole géwél ca ga keroog la jaay bokk ga ak xam-xam ba ko muy saadix walit am-am ba keroog la jaay bokk ga ak xam-xam ba ko muy saadix walit am-am ba dañ doon newoon te sunu maam Anta ñu jox ko Seex Bamba mi raw ab jant kamil ba maam Moor doon newoon te baayam ñu jox Bamba moo ki doomi baayam ba mën na leen na ngeen ko jox borom saam ngir kaamil ba mag moom la leenu dem saam maam Abdou Khadir bàyyi Mbakke soxna moo ko bindaloon maam Balla ay sa soxna maam Abdou Khadir bàyyi Mbakke soxna moo ko bindaloon maam Balla ay sa soxna yeddoo ko rey moo tax ba sunu Balla gàddaay Mbakke sañ si ngay wala ko rey moom it fab kaamil ba jébbal ko ma mooranta mooy kaamil ba bis bam faatoo lañ ko jox borom saam bis bam faatoo lañ ko yët daam ñu jox ko borom tuuba fa taaxi njurbel bamba na leen yót ko ci ma gis naa ko bis maqaama ibrahima muy dolli ay maqaama ibrahima gis naa ko bis maqaama Ibrahima muy dolli ay maqaama Ibrahima mu boole ko korong bu barkeelu nekk ku ñàkk sol ko daal di kiilu maam Cerno ne su ma masaa sol mbubu ma damay nangoo ba suñu mbubu ma xam naa ne ku denc mbubu ma fase koog bank yaa lay tani ma sol ko ndax ma sa an ma Bamba an leer Cerno ñu seeti aaj kamara ndar di ko nag jarnoo ko sant booba moo sëriñ daam bañ demee kajoor la benn sëriñ daam keroog la cerno yónni junnim gudd boole géerey Seex Bamba sii du gumbe keroog la cerno yónni junnim gudd boole géerey Seex Bamba sii du gumbe xam naa ne jëmmi nit ji koy malaaka mooy Cerno Faatiw tanaa musaaka xam naa ne jëmmi nit ji koy malaaka mooy Cerno Faatiw tanaa musaaka ba ñu demee ndar ba siyaare maam aas tee bamba ndar di lajja paas tax na fa ndar lil xaadir jilaani te lum fa sex Cerno ko yalwaani Seex Bamba ñaa laaj ko fa wirdul xaadir ngir bëgg a jokk ci Abdul Xaadir as ko toogal mun bul ma tàggu diggante Muusa ak ku dara ngay sakku as naa ko toogal muñ te bul ma tàggu diggante Muusa ak ku dara ngay sakku sa man démb laa la fàggu moor samba tukulóor balaa doon sax yaa di juróom ñetteeli lawliyaa yi yeera wa wirdoo fil alaahi wa saaminul xaadimu bamba ahmadu man misloo fil xawli laysa yujadu keroog la bamba xëy na meng di waaji seeti kunti far na feng ca moomaat la toog fa dar bay xaddi bay bëgga way ganaar bi xëy di raddi keroog la diisoo ak Cerno yoonu penku diisoo ak Cerno yoonu penku mu ne ko nan daal di ñaan tey tànku keroog la Bamba naan ci barke diili naal daal di gis kuntu jiili rabbi bi jaayil mustawa wa mandari talla oo oh, abli xuruuji min dari ba ba tete ñi bëgg dem la maam aas daal taxaw ne Bamba yaroon ñu paas gis naa la bii ngay bëgg a dem ba mag te yaaraw soo daan saxal ci mbag sa mooy sa ndimbal ci baatin mooy sa rawaan maam cer na yaa din la gën bisub karoog la bamba daal di fomm def yetti way jox wa cer na jom bisub karoog la bamba daal di fomm def yetti way na jox aas na jomm حدر والنفق من الرحمن ليس من السودان والبلاد الدر والنفق من الجبار ليس من الفجار والأبرار الدر والنفق من الواب ليس من الأعداء والأحباب إلى بيت la Bamba dénkoon maam aas mu yor ko daal dina ko yéena am taat keroog la aas jox ko ba wir du xaadir بإذن رب العالمين خالد karaal la bamba jox junneem ba maam aas mu naa ko fal naa la teyaa xuuraas as naa ko fal naa la kajoor wa gànnaar ak bawal saalum jolof di samxaar li ba daam demee jolof njaay ñoom dalaluñ ko ana kon daamali di Ceerno Faati kum mën a yem di saahibul aayaati soodan Suleymaan mu di sam tiwiitu daf an wa jalban mooma daq yoot jokk fa mbalaanum Seex Abdu Xaadir mën doon woon ci satu baayu taayir mu boole kook jàkkiwa ak deram ba ak kurus ak maam ak gayoon tiroom ba bañu ñu demee mbàkke kajoor la baay daam xarloo mbalaano kañu naan sëriñ daam Seex Bamba doglu ko tubee ak ci Seex Abdu Xaadir moo ko ngir barke nee na koroog ku nekk laaya ci alxuraan ma mu ndi laaya peñu mbalaan moom la Bamba reere bisub koroog añe ko lil kabiir ca desoon mu jox ko maam Seex Anta ne ko nga barkeeloo ko yaa di jant bis booy dajeeg tubaab yi yóbbu loo ba seex di dem te mu barkeeloo mu daal di firdu fa wirdu wa jox maam Ceerno ne moo ko sant wan bandar moo yow te ne ko kooka mu am saada bila saqawatin bi xarxaada man jàmme mooma ko may fa daaru alhamdulillahi ma santu waaru déglul ma wax la bis ba bamba ñibbisee mbakke kajoor ak cernu faatu ndaamase njafal ga jàpp cernu jiite daara ja seex ibra faal jébulu ànd ak maam Cerno fam ne soxna Faati Samba danaa ko jox sha Allah Sidi Bamba la mu waxoon yàlla dogal na loola ci darajaay maam Cerno Faati Samba la mu waxoon yàlla dogal na loola ci darajaay maam Cerno Faati Jalla Dam la kamu yoroon la jox Sëriñ Madun Joob ci darajaay maam Cerno Faati mooy ajiib foofee la soxna Faati Samba faatoo moom doom su góor sa ajaban moo yaatu maam Cerno dolli wax fa Bamba ba mu toftal ta soxna Faati Samba ñaari jigéen ñi Seex Mataar Samba radiya anuma ali Bamba faraag ba soxna loo mu baax ma faatoo la leen sëriñ ba bàyyi far nañ faatu keroog la na mel ni gayndeeg mbooyo di wax ba daam fagun soxna penda bungo am nañu doom ju tudd soxna faati ci darajaay maam cerno faati bul jéema lim la cerno wan ca bamba te waa këram moo doon bëtam di tànkam fekkoon na ceerno ne wax Abdoulaye Jaw ñi lay sangub kër gi atal ba leen jaw Ahmadul Xalifa Rasuulillaahi Seex Mustafaa Bakiyu Baabullaahi ca mooma Alla Bamba dem ba dem ngindi dem ku ngindi dox fattu ngir bëgg leeri nga ne li Tuubaa maam Cerno faate fa desoon di kooba tax na fa xeto fa xasaw gu ga luy bëgga mat weet fa gisoon waa kër ga Cerno yoroon waa kër ga ak dongoom ya di jiite jàkka ja di jàngal dongoom ya loolaay lolu xalifal xatim Seex Mustafaa al Mbàkke Muhammad doom loolaay lolu xalifatul xatim Seex Mustafa Mbàkke moo mat doom Cerno ci yoon ñun kon ndooy ca yor yoon moo ko yëgal Seex Bamba ko këley góor Bamba na Cerno nang ko wax borom saam maa ngi ci xalwatu damay liggéeyal saam Bamba na Cerno nang ko wax borom saam maa ngi ci xalwatu damay defar fileeg saam keroog la Cerno yoon abdul xaadir moo jënd gàtt ak torok ci saaya sëriñ mamar jaara ko tudd xad wafa tudde ko boppam bambana ko mustaba bis bam tuddee ba yooma asoora la bamba ji sin leeri tuuba mu leer muro a bisub tuddam ba yooma asoora la bamba gis tuuba mu leer woo a Seex bamba topp leer ga jël tuuba tuuba leeram ga jël na ba booba ci lee taxoon Seex Mustafa mu am tuuba leeru mbirum juddoo ma feeñal tuuba bamba dem see la ko wax ma am cernu ñu daal di toj àll ba gor mu war nu Seex moo dundu mbe woolu mboolem quartier ya Seex Bamba rëdd jàkka di texim reya Seex Bamba tudde bépp gawoon fa Tuuba sajaratul saada la tekki booba boobee la dey maam Cerno xarfa aada ne ko filey sama mujjug saada bisub koroog la Bamba wax borom saam ne ko juma dina fi am fileeg dara saam bisub koroog la Bamba wax borom saam ne ko juma dina fi am balaa saam bisub koroog la bamba wax borom saam ne ko juma bamba am fa ati at di taalif maam Cerno yor sa il di aarif ca moomaat la ko digal mu kër te amul sax ne ka dëkk kër kër boo lay wax Bamba naa ko man jaar rek ma dey su doon dey am na ko loo yëngal sa xub jaar la te foo taxaw maay sange war la aar la li nga jekki ba junne kap tànk ñoo yem fi yow sha allahu doo toobank may naa la ngay dundu ba waxtu la soob deefu la seeti doo fi taggoog lu la soob soo xalamee at ma demeet te kenn fu mu jëm moo ñeme soo xalamee at ma demeet te kenn xamul fu mu jëm ngir ci réew mi moo ñeme ngir tàgguwul kenn ku dul du feeñal boot li tax mu raw ni bu soobe daal di bindab leetar yónne ko ci tiidee mu tiitar leetar ba dem fekku fa see bamba waa Mbàkke ak waa Mbuso bu ñeppi bamba ca bamba dox jolof wéy ba waalo ñu naa ko doomi doomi ab tawaalo ba mu demee boromu mu jiitu maam Ibra Njaay la ko gis mu man du Seex Bamba romb ko hoy gu mu julli alaaji maali la ko gis muy jàngale ba mu nuyoo alaaji waasul asri la ko ne santal bin fil asri alhamdulillahi illati axrajana min sulemati li nuriina ba ba setee la Bamba xëy wàññeeku del Tuuba Mbàkke gépp yee ko inna allazi amarani bil masa huwa allazi amarani bi ruya ba mu gisee Maalik wa Ibrahima la teppet jaaji yoonu ma ba mu ñëwee na Cerno Ibrahima gis naa fa mbar mu tudd Ibrahima jawriñu alaaji fil islaami bun sàggane ñu raw nu fi xiyaañ bisub koroog la bamba ñaax maam cerno yowmal xiyaamati ramul bi xarnu koroog la naa ramul ma ahlul bari su ma demee géej ram mu ahlul bari ca mooma aj la géej ga bëgg a liggéeyal mustaba may géej ga loolaay lulu alaaji seyfi fal ñëw na ca ama wasatin min fadili kasu rajab la njool ma ñëw ci dunya loolaay guddig riñaan ma toj këram ya keroog la bamba ne rasulullahi ñëw na fa tuuba ngir ganam lillahi loola waral seex dem ba makka dem tay ba far ngir njool makka musaaka yaa ngi bëgga fu ci bamba dëppal soo iman cer na yor na xol way tànki bamba tànki maam Cerno mu ne su ko tàggale abiyaat way tànki bamba yaak tànki Cerno faati mu ne su ko tàggale fi ku soog jaxasoo ca baawaan ñu de jiitu ku soog jaxasoo ca baawaan seeni mbir jiitu ñu de jiitu ñawan min asasin li masasin taqabala wa bi siraati kawaami su balaa loolooy juddu sëriñ ma samba mbakke maam Cerno am fukk ak juróom mbakke torog ba seex bamba ñëwee fa mbakke Cerno di dox diggante yaari mbakke sëriñ ma ku jëture ak maam Cerno ñoo topp too lepp li ñoo ma tawnu murit bu jébbuli si moo lay taxaw tool bu ñu faraasu bam sax mu kum digaloo ki taali Serigne Touba moom la ñuy jëkk béy fa Mbakke booba buñ digaloo taali Serigne Touba moom la ñuy jëkk béy fa Mbakke booba jarnoo ko jawriñu Serigne ba gor ko doodi fa doodi ñu war mu farlu Serigne bu saabe ñëw mu jox garba ñu bay ca gent ba mu fay ko bor ba te moomaat bamba wax maam Cerno diggante soxna Mbàkke ak góor ñu daal di fab soxna sa jox sëriñ daam fa Mbàkke bapp loolu mooy mbégum daam am na fa doom yu sàkk ay xalifa ci darajaay maam Cerno may xalifa loolaay loolu Muhammadul Lamin Seex Baara Mbàkke kooka mooy amiinu te moomaat la bamba te moomaat la bamba jaay jàng bam tàmbalee dalal mu jóg di fëgg te moomaat la bamba woo nay jàng bañ tàmbalee bañ tàmbalee tëral mu jóg di fàgg waa dey tëral la amin ab yaani ba jot yaasul na suuti la yaani yax bamba daanu ndeke fam na aljan di baamu woy wa ba alal ma jaala yax bamba daanu ndeke fam na aljan di baamu woy wa ba alal ma gaal في ذو الغياث المجر المنادى من في ثلاثة كرد ردا la Seex Bamba tasaare daaraja daldi bayim jàngale mu am daraja bisub keroog la Bamba woo maam Ceerno digol ko muy jàngale mooy juróom mu def ko muy aalimu kulli fani shara arabi tadron bil manni teewaat la ko yóbbal fa jaxate kër moor biraama keere foo rew lukati déglul ma waxa déglul mat walbati la far la waxati woy wa ma am cer na woyal waa njaxate ala siihi waxti siydi ji salaamun faridun laa yubaari bi misli salaamun kama miskin wa wardamin al nadbarin على سيف إبراهيم مصباح أهلي نبات جهل أذى الأرض جميع ما كما تنتهي في البدر سلمات ليله فكم جائلا قد فهلا مبجلا وكم من خميل فاق فلا بفضلي ألا أيها المقود كل متن ويا من يدير خمر بار لفيلي أتاك قريب من بلاد بعيدة فلا يغفل لنا عن في القرب رجالي وكن لي أبا برا رئيما ونافعا فأبخاك رب الأرض آوي الجفي ولله لو كنت سالا خدودكم إلا مماتي ما نلت بمقصودي والله بيسر يبل دنقوم بي way waag ja loo mën nañ ca terrain ba amul fa am at bamba daal koy woolu ne daa ko haajar na moom woolu ca at la ko yebal fa kër makala wa huwa ala rabul wara takawala ca at la ko yebal kër makala huwa ala rabul wara tawakala la dale njaambur jàpp waa kër makala moo leen xamal laa bum defiitum la dala njaambur jàpp waa këram ak xamal des ci tum laabum sa amul fa amat Bamba dellu woolu ko ne ko sëriñ atoog aqiiqa boole ko ca mooma la ci mbakke baari dajale fay ci xaari wal ci baari maam abduloo ànd waag tubaax ba ñëw fa wisite kër ga ngir balak doom am fa fekkul fa dara dara lul ay téere ba jama mer njortu la def na meeri daldi tasaare kër tuubaaga soxna su nekk mer mer di saaga daldi tasaare kër tuubaaga soxna su nekk dem mer di saaga looloo taxan maam abdu bamba naa ko tabban tabban yërmandeem la naa ko tuubaa fa tuubaa ala wax maam cerno dunyaan wa uxraan mooy texel bi xaw na maam abdulo moo doon lantinoorub sarru maam cerno moo di lantinoorub sirru mu yónni cerno boole koog dem kebe tubaab ba na fa demee ba cerno laa wax bamba leetar ba mu ne ko jibriilu ñëw na fii fa nër ba wax na ma seen mbir xamal ma mbóor ya laa yaa way siyam moo di mbóor ya billahi baarakum na daara jeewali wa xayri xadun bila tanawli xanaa Bamba génne Sénégal ñu ko yóbbu Kongo mu tabbi ci gaal subaana man fil bahri wal bahri ma jawaari wa kullan jama subhaana man li jada bi sabina bi xidmatin li taibin madina سبحان من يوجد في النار الليل والإسرار وذل الإخبار corog la bamb genn cerno ruuya sabbi ca géej ko sàmmal tool yi la bamba dénk cerno ruuy sabbi ca géej ne ko sàmmal tool yaa ngi mel ni gone guy wattub tool di yéeg di kullu far am njool ñu naa ko njool mi njool ni far di aguron ku dem ba laal asamaan ku dajee kun kun fa yakunu far na jar na tawakal maay wattu lislaam te ay kanum yéegal te ku ne man kënu waxaa di lee kun xar man te ref nu rew laa lislaama man keefar yoral ma lislaam baatina man sayir te cer na mooy daam bisub koro la ko sayir sayidu jabban mbiram fa daaru mooy sayidu texeeg murit yàlla turooy teere moo jëkk a jébbalu koroog fa baari fekkoon na bamba boole koog musaa mbuub sëriñ mamar teen ak ña daan buub karaag la sunu maam Cerno donte baari fanaani tuba appale naan ko aari karaag la sunu maam Cerno donte baari fanaan tuba appale naan ko aari muri ñooy roñ yéeri yóbbu be fa kër sëriñ Mbàkke maro musoobi ñu jàll wi Mbàkke bawal bañ gu waa Mbàkke naa ko bu yóbbu biiwe maam Cerno yal jàll sañ ci tolloog ñu naa ko ab law nga danañ la sànk ba mu noon ya di tax di ree naa koy dundal leboot di wéy danañ dee Mbàkke la daam Ahmadu Faati faatoo mooy magi maam Ceerno su dundan yaatu Seex Bamba ne su dundan kenn du xam moo tax ñu lem ko jëp jëmmi biiram yàlla xaam mbàkke la daam faate amal faati faatoo mooy magi maam Ceerno su dundan yaatu Seex Bamba noon na su dundan kenn xam moo tax ñu lem ko jëmmi biiram yàlla xam foo bee la faati panda njambale bay bëgg faatu bamba moo ko jàllale mbakke la seex moo du yo daali baato fokka sëriñ moor na sekk maatu seex mu taba mbakke daldi wopp seex baaram mbakke wopp bay jo dab lu mat juróom ñett nelaw fa mbas balaa ba tar na mooma an mbasam keroog la cer no masa jooy ci duniyaa daldi garante doo ga feeñ yu bon yo yàlla maag taa ndey ji ak taa jote ñu doomi bamba yi la ñuy je moor mbàkkeloo ma daan di xaamal cerno mool daal di fàttu jotaale farnu cerno torak la cerno woolu maam ma suugi ca saate bay ma tar ma suugi boroomi jinne la ku mën lasraar la mu lis di xaaral ko bana ko tabaar la ne ko dangaa dëkke ci ngirum jinni soxul te dem fa guy ga fi son te mooma àll ku dem guy ngura sanci fa ab dëkkam saxal fa góor sax na fa yetti at ci kër tey jolli mu bënn fam naanu mu daal golli te bamba daal di nduur mu jóge kongo ne jarañ ma ngay luur Bamba daal yónni Abdoulaye Nduur mu jóge Kongo ne jalañ ma ngay jox ko fa ay leetar yu ànd ak tërnu tàggale ko balaa fegal ko ser ne ko nga sanc fa nu na guy takk tudde ko daaru ko fanaan dun tàggoo te sakk fam naano te yeesal diini te xam ne maa ngi daal di ñëw fil iini boole na ko keroog yëri barkeelu ne ko begel da dee nga kiilu jox fa leetar yu baal waa kër nga ne ko na yabal ñu dem di taranka ku moo ko ko ko yàlla boole jarul ñu fee limal du yàlla xoolal ku mu nekk nañ ko jox ab téeméer bala nga koo mu yóbbu loo mer te mbakke maa waa kër ga jigéen ña daanu door ko ay tappar ka te mbakke maa ne waa kër ga jigéen ña daanu door ko ay tappar ka mu ne yoral ma soxna Fatima di maam ngir la mu yoroon si mu ci xam ne man daa am lu góor Basiiru lañ koy tudde su dee jigéen ma am Cerno tudde xaddi ba mu del see lañu amaatum xaddi ma faatoo ngir bel ku la xaar du xaddi ma wax gannaaw Bamba na Cerno def njaboot gaa dëkkam ba moo yaa gannaaw te seddu te mën a muñ te mën a sàmm mbootaay moo yaa ginaaw te seddu mbootaay te mën a muñ te mën a sam mbootaay ci weddi laajal sàmmi baati julla moo moo teewe dimbi teewe te am fulla am na ko kër gi yette at di sancaat taxaw mbul an ko am na lankaat réew mi féewale murit yaak jaam yaa moo du nembe naa koy ay guram ba ñu jullee korom bisub bisub talaata ñu yot ko gan nga ca nu dula talaata Seex Moodu Xambaat mën naa ab ci dara jaay maam ca nu may xalifa Seex Bamba woy ab dénk yónnee Ceerno ne ko nga waar bi leen yaa moom xam wa antiri naa te la dénkoon Ceerno ji waxe piir yal na Bamba Ceerno ma far la wax xasida ga ya nga xam na Bamba jox na Ceerno yëf ya fasiyatun tukasiru ataaya li kulli man yajtanibul xataaya usika bil ilmi wa bil ahnaali ما تعدني على الكمال نزي فؤادك عن الأدران تكن مقدما على الأقران ذل لإخوانك المسيئة تنجو من البغداء والفضيئة رم تود لكل مسلم تنجو بلا تردد من سلم إذا هتاك عدود الكتاب فكرم الكتاب بالمتاب لين لسانك وقلبك للمؤمنين غير خير ما ناديتك اليوم بإبراهيم علم فتن ينفع تركين تثيك بالصبر وبالإخلاص لوجه من لي جال بالخلاص سلام في الجلال والإكرام ala nabi darajatil kiram te moomaat la cerna ba papiixa boole sari atubi sakimiixa mu yësalaat diine fa daarul manaan yóbbu murid ya fetoo mel mu sultaan tarbiya quartier fa toppal Bamba di jàngale julli tee ñu yen ba weddi laajal alliñam fa baari la daan ànd ak maam cerno daan jaari sëriñ mamar jaboo sëriñ moor fen la sëriñ mamar kan tegal mbay fen la sëriñ amar faal mbàkke moo ko jàngal jébbal ko jarbaat ba kafeem lay tàngal seex mustaba mbàkke ma dib xalifa cerno ko jàngal ko ke new new jébbal ko amilatoo ta ay nopp noppi ñi koy déglu tamang ma fopp sëriñ ma samba mbàkke moo ko jàngal fa daaru manaan moo ki ragam yàggal alaaji falloo nga wan fa mbàkke cerno ko mottilil bi xayri sàkki dencal ko doom ju tudd soxna aysatu tata jamaali moo di jule naabi sëriñ ma mo raqeya moo ko jàngal jébbal ko taaba kooka lam am yombul seex coroog rakam seex balla coro jàngal na leen aslef ñu dom doora beru sëriñ Mataar Binta sëriñ Mamar tey moo leen xamal xamal sëriñ Musa tey sëriñ Madu Pend la cer ma jàngal jébbal ko doomi Seex Bamba yu yombul seedu Seex Mudu Mataar Jóob ko jàngal jébbal ko soxna bu sa moo ko jàngal sëriñ ma bandi Njaay sëriñ Madu moo leen xamal sakk na ko jàngleb ñam jàngaloon ko taaxi daaru malaan mu ne su ko lim ko ci farnaan xanaa yëgoo daare cernu sàkkoon mi tari loo donga ya ma fa nekkoon musaa limal ba tey ña jàng ñoo raw tuuba musaa limal jàngalekat ya ba tey ñu jàng ñoo raw tuuba ma mareema ibrahima ñoo daa bindal maam Cerno Ibrahima Seex Moodu ñaan ak sey ñaan Abdou Karim Lo yooya gaaya waane Sëriñ Mamar Dem ak Sëriñ Mamar Ka ak Soose Njaay xam ne Sëriñ Musa Ka Seex Moodu Muxtaar Jóob Sëriñ Mamar Ñang Seex Ture jàngale na daaru Farlang ak Mustafa mu dugay mam faati Ahmadu Mbakke moom jégal xariyaate jàngalekat ya mat na waa kaamil ba ma nee su leen a lim jëral ba ma jéem a lim la Ceerno Faati seegal ndelu ma lim lim du tax ma jeexal Aliyu la mbaay ma paate si laate a Bamba ne maam Ceerno am na fulla sëriñ ma daar gay Ceerno gay seer ngay ma tamba gay ma suñu seen ca ngay ma xarit si te ak sëriñ mbay si ma jabu si ak ma soxna si sëriñ ma yaasin jóob ma mar jóob cor sëriñ ma taar tamba ñuul jóor sëriñ ma mar jabo cerno ay seex balla jéey ci abdu mbàkke cam saa njuga sal seex ma dikke sal seex paate sal yooya góor a Cheikh Moustapha kan ak sëriñ Asan kan sëriñ Mamar kan Cerno bokkul ak kan sëriñ Galaay ak sëriñ Musaa ja Cheikh Mudu Yaasin ja du Cernoy waaja Njaay taftal ca doom Njaay sëriñ ma Njaay Ibrahim Laay Njaay Cheikh Abdurahmaan Njaay Ababakar Njaay Cheikh Mudu Njaay gongoy ku Bamba Njaay sëriñ amar seen ak sëriñ mamar seen seex ablaay seen cerno fatilaayi seen sëriñ masaaxo seex góor a baaxu seex fatim dimbal am dawa am njaaxum sëriñ oseynu faal sëriñ ma jalle faal mool faal gaam xam na sëriñ ma silla faal seex moodu ñaŋ xabaan sëriñ maari ñas seex madu joob waali ibrahim laay moor ndatali góor a bajaan maali nguur seexi rajum xam na sëriñ ahmadu ndiir seexal na ibrahima jubbum xabbaan sëriñ mataar wañaan sëriñ biyaa daan seexal na ibrahima jubbum xabbaan sëriñ mataar wañaan sëriñ biyaa daan seex baabu gomum sëriñ ma morgol njoorel leneen sëriñ ma may tëran ak duural sëriñ ma dundaara gay sëriñ ma buri gay Cheikh Buubu Mbay maam Cerno Faati Laay way Cheikh Abdoulaye Jang bari xam na Cerno Cheikh Ali Jang daw barawnu Cheikh Ali Jeng Sëriñ Mataar Daraame Moodu Daraame doom jabil kiraami Cheikh Babacar Saw Banda Saw Mamar Saw Abibu Saw ku mooy ci Cerno doo tew Cheikh Moodu Moodu ay sa Sillu duutu leen sëriñ mamar ba ak sëriñ mamar caam maam cerno faate leen defar gannaaw daam ceex ala tambe giy ababakar giy daawude giy maam cerno daawu leen jay maam cerno am na yaari moodu jongu ñoo doon musa jongu ak iidu la jongu sëriñ mataar ndongo ma dëkkal ndongo ceex ibra faate tax mu am ay dongo daawude giy ceex la limaa leel xaar gay taalibi gay maam Cerno Faate Jaraway sëriñ Mamar Jaañ ak sëriñ Usmaan Jaañ maam Cerno Faate xaw na ko ka waa Jaañ seexal na Ibrahima Mbaw Seex Moor Caam wa gumba Caam dootul ci boor nuy jaam xanaa xamoo sëriñ Mamar Njaay àndal Cerno ko seexal ma nga fee di gàmbal Seex Moodu Lamin Seen sëriñ Usmaan Seen Seex Njàmme seen ku seenu Cerno Laay seen lim na juróom ñetti fukk ak juróom yaar ci eexi maam Cerno ci lee doy waar looy laaj li mu seta lay am daa naane yomal xiyaam seexani ñoo cey naane ma dellu wax leen mbiri daarul manaan ngeen xam na Cerno fonku daarul manaan bisub dibeel la ci daarul manaan te murit bu manaan saxal fa jàng alxuraan ak sikar ak xasidatu mu toog di fagar ban na fa teenu madroon muy baawaan daaru alim angutoo be saawaan boobe la Seex Sidiya fer fa daaru juddoo fa guy nguraa ba am na daaru yor yor ba seex feral la teen ba bënn ca takkusaan gaskel ya daal di génn boobee la bay fa fettoo yetti dagg jox ko Sëriñ Tuubaa mu tool way jàkka dagay sëriñ balla abibu gajaga bamba jox maam te mu def ko asaka li juróom ñaar fukki takk tegal juróom yett mooma tar ragal na li mu atam ya noy xar baax wolof lu ngeen añaan añaan ne boo baax seex bamba fab dagay sëriñ musaa ja jox ñur bale tuuba na cer noy waaja ku weddi lii laajal sëriñ musaa ja moo ko wax fa daaru moo di waaja maam Cerno dellu jox ko daggaay Ibra ak Abdu Mbàkke yaari jëwriñ la fa Bamba dellu ko ci daggaay Abdu jëj Ibra mu jox ko Abdu mu ame waa kër sëriñ Tuuba te yooyu wax ku sa sëñ ba mu ame waa kër sëriñ bu ba te mooma kenn du sa sëñ ba li moom juróom ñett fukk la woon ciy sax jigéen ñi daam di wal di yi soq ca mooma at la pël ya xeex ba tool ba jam nañ ca dongoom ya dutub allah ba ku yeddi lii laajal habibu gajaga moo magante jëwri ñe sangu waa gajaga bulu ko nakal baaxi mbàkke mbàkke moo ko saral ne kon badar ja dekki jam nañ ca pëli ya fukk ak lu topp ñële ñu xaa di daw di topp ñaari murit léppal rey fa tool ba xare badar ba sàkku nañ ca yool ba Aliou Gueye taa fa wa maata xaru na faatu ba talaata fekkir na maliki te di faatu seen taaxi àjjana ya ñoo ko yaatu jam nañu mamar soxna tëf xasan Gueye dam njaxat sàmm murit yi yanaan tey am satu ñaay ñu fàttu ngat mu daanu ñu ngaan ko Ibrahima mu farkaanu ñu jam ko ab xeet daldi jam na mor yuux ya na wiip walla ga mel ni ab taw jam nañu mu do gaaya songo walla ga ñëw daaroo ki mbakke déggoo mën du mbe saaxo ñu xaañ ñu mu du ñu jam ko sox ya takk pël ga daadi xari pël yi jigéen yaa ndaw ñu naan ay yéegam mag ña di làkk naa muri yi léegam wallaay muri yëpp bu ñu yoroon balak doom kone gu nekk fay tibbal makub doom korok sëriñ mbàkke bu sëriñ daam ñoo tee badal ja dekki bi it ni maam daam waroon nañoo furli fa daarul muxti kon tey balak doom ak la weer ati jubéeru ak amaat fa nii gi fetto ñoo soo ko ba fuñ taxaw di matt maam cer na ba ñëppal na ngir jubéeru bor la ca naari duuta tagoog dayru maam cerno bañ a pëli a ngir bi la ca naari duuta tagoog layru maama ma rey maam balla ay sa mbàkke mu rey cerno faati mbàkke ca moomaat lañ kalaame cerno te jawriñ yi amuy la gouverne bisub koroog lañ ko yebal si moo far ba jaag waare mu di mbuwalu maam Cerno mu ñëw fa Mbàkke ak arda amidum kayel muy nanki fël ya ànd ak adnaan limaami wala ya ànd ak Cerno naan imaami mbaxaan di leen woo ko tribunal fa Jurbel ñi wii ci Cerno ñëw di leen yëm ba ñu mu naa ku maanum njaageen moo leen di àtte mu jajaxe ba mu demee yàlla seral soroom saa ci darajaay Seex Bamba may tamit te moomaat la gedd daarul manaan ngir pël yu bon ya daal di feeti xabbaanu te moomaat la seeti allub gaawaan wër ko mu xat fa moom mur jasaawaan mu ñëwee la woolu deex fa càqami ne ko demal sanc ko ndax ñuy sàqami te moomaat la yegg kër bu kuntam robb fa yaa ba di sal ab janant te moomaat la waa si daara fa kër ma gay daara waa Sénégal waa pir nu daal koy faale mu daal di fab li bu yóbbu waale moomaat la sampu daaru pakala jox ko Mataar mu yor foofale àll bakat mu jàll sañ ci ahmadu jong wa paata tal ñoo daan te moomaat la del daaru manaan te bamba daal koy woolu daaru rahmaan ne ko demal mbàkke kajoor ta sañc bawal di war kajoor di dolli ca mooma at baay bay dugaa iima faatu aama war ca sin bamba yebal ko mu daal di jaale abon si fi seeni rijaali bu mu waree dellu daaru raxmaan fekkoon na bamba worloo deymaan keroog ba carno yendu see daaru keroog ba yendu see daaru seex bamba déglu koor ga ñépp waaru keroog ba cerno yendu see fa daaru te bamba yenn doglu kor bi ñëpp waaru ñu naa bayit bayit mu far begal ko banaa ku yendu daaru jégal nan ko keroog la taalif ansi labiyaati ñi di ko soow ngir dénk fornu saati keroog la taalif ansi labiyaati ñu di ko soow ngir fonku cam na faati wa tarkunal kasibu ya ixwaani أفضل من تلاوة القرآن ثم النشأة لعالي الباري هرل من الجهاد في الإخبار كذا كثير الموت أفضل لنا من الخيام في الليالي سمنا فدم على سفما النبي فسير إفقة غدا فديا يلبم يلبي لبم بدين كن كرم فدار منان غير كيرم مسلات تجلم بوتي كرم yoo xam ne jomb ne goni bi xarnu bamba ko waxtaane sëriñ ma samba ma way ko man mi wereka ama bamba te bamba noon na seex ma samba caan tumba mbindeef doon xam bir xam na cernoy ndoxol li jooba yaay càmmañ ba loxo bu nekk la mi njëriñ borom ba ni joora koy leel bu lekkul faatu càmmaña koy laa ba lobu laabul laatu am ngeen ma man bamba ma nit am naa leen te xamu ma waaye man xam naa leen yéena di sama saayir may seen baati yéena yaram mi ma di ruux di yorukun yéena di man ku leen jamoon ma nacc ku ma jamin ngeen nacc déglul bàcce keroog la naan na sàmba ceer matu la ba gën a raw xam xam ci man loo xam ne kenn xamul ko am na ci man loo xam ne kenn ko yéem naa ko ngir li mu xam ci man te waxu ak li mu xam ci ay arab te jàng ko na ma ngir xam-xam mu bari bari xam na ne may bahrul ulama sori yéem naa ko ngir lu saa man la ko jox maa ko gënal boppam te ku mu jox lu la ñax yéem na ma ngir ma jox lu mu rëy ma jox ko bindee fi ude te naan tey yéem naa ko ngir lu ma ko jox lu sew sew mu denc waaye mosuma laaj yem na ma ngir waxtu aajo ul defal